Donc l'objectif, c'est de gagner les élections. Nous sommes ici pour pour gagner ces élections Nous ni ñu nous lancer parrainage parrainage tout à l'heure monsieur le ministre Youn va nous dire que yi nga département bu commune jox ko indi dans le département de Thiès dans la région de Thiès lolu, dinañu may lan la wara def parce que bu fekkente ni def nañu un euh, un parrainage des députés ñu un un parrainage muy parrainage les exécutifs locaux mo xam PCD mo xam maire parrainage citoyen Nous ñuy permettre ñu mobiliser parti euh, coalition moo ñuy permettre aussi ñu mën a compter suñu bopp pour xam ñaata la ñu mën a am te loolu am na loo xam ne bu ñu ko amee ci parrainage bi mais un parrainage sérieux un parrainage sérieux loolu moo ñuy may ñu xam d'ores et déjà bu ñu demee ci élection yi dinañu am ndam te am na yaakaar ni li ñu fi c'est à peu près le tiers Nous avons le tiers des électeurs manam boo jëlee électeurs yëpp nga xaañ ko à peu près ils amee loolu le nga premier tour parce que ñun suñu objectif le premier tour deuxième tour ci parti au pouvoir Worul. donc il faut que nous fassions le au premier tour loolu lu am solo dinañu expliquer aussi je vais donner à mon ami le maire Mbaye Dione mu expliquer ñu exactement nan la ñuy remplir fiche de parrainage loolu am na solo lool mu mën cee ràññee li gën a am lu am solo mooy majuscule ñi ko xamuloon xam naa sama mbokk alpulaar yi xamuñoo luy majuscule maanaam tur bi dañu koy bind en majuscule lu am monsieur le ministre reviendra dessus mais du ma fàtte aussi Un leen nuyoo monsieur le président de Benno Bokayakar après le délégué régional président nee Nous mi ngi nuyu ñëpp ñi àndoon depuis 2012 2008 2012 mais mi ngi beral les alliés nga c'est grâce à eux qu'on a traversé la rivière parce que nous, nous ñu bu ñëwuloon duñu duñu rivière donc nous, président le président mi ngi de di donc monsieur le président Mambounama nous euh, avons naa pour wax ni engagé un combat crucial le combat pour le parrainage combat crucial bu am solo képp koo xam ni bëgg nga Sénégal jëm war nga xam ni Benno Bokk Yaakaar moo war a continuer yore réew ump leen ni lépp li ñu wër jàmm amu fa am na lu bare loo xam ni président Macky Sall moo fa indi jàmm mais président du ñu bàyyi ñun ñëpp ñaan nañu ko mu toogaat fii ak ñun di gunge ki nga xam ni mooy falu te ñu am yaakaar ni il s'appellera Amadou Amadou Amadou dégguma leen de Amadou Amadou Amadou on dit Amadou on s'arrête et on dit ba Amadou Amadou Très bien. Donc, on a compris. Donc, c'est ba Comme ça, Ken ci Djoum. Ma amadou ba naturellement, parce que dañuy dem parrainage. bu xarañ la Njangam ñi andal bokk nak de classe. mom da doon raw rek Donc, amadou ba da doon raw mën mënoon na jàng lool mais déggu leen ko ci ay caaxaan ku respecté doomi aadama la te ku président Macky Sall am naa yaakaar ni mën nañu ci am yaakaar ñun jaar-jaar bi président Macky am ku mu ko sottil nga am dara li mu def ci réew mi yebuñu ci mais limu woné ci bitim réew mo xam ci afrique la mo xam ci adina war nañu on doit être fier de lui mais nak on dit que nul n'est prophète chez soi donc monsieur amadou ba dafa am jar jar ci administration jar jar bu way ku xam administration keroog dama ni won amon nañu président littéraire muy professeur il a mis en place ce qu'on appelle la nation muy président Senghor ñu un administrateur civil il a consolidé l'État. état président Abdou Diouf ñu un avocat ñoom Omar Youm wax ak lijjanti rek ñoo ci ingénieur président Macky Sall ingénieur liggéey rek la xam liggéey loolu la xam c'est pas étonnant li mu def daf ko jàng daf ko mën daf ko maîtriser yàlla def ci ayam ci ayu président Macky ci ayam pétrole ak gaz génn gars yi jóg nag pétrole ak gaz bi bëgg naa ci moo xam yaa ngi bitim réew moo xam yaa ngi fi ñooñu ñëpp li ñu bëgg xam nañu ko jarul ñu ciy xuus lu bare mais umpaleem yéen ñëpp li ñu bëgg xam nañu ko léegi nag gannaaw bi nga xam ni président Macky Sall am na ñaari ba ci wala xaar ñetteel mandat mu taxaw ni gëm naa ni warumaa dem kooku duma ci xuus ñun ñëpp dégg nañu koo xam nañu raison yi mais dañu koy féliciter dañ koy gërëm dañu koy sant gannaaw loolu ñu am président boo xam ne économiste la yow am nga pétrole am nga gaz kii liggéey na réew mi l'économiste na économiste bu ñëwé kay comme comme bi dina dox pétrole ak gaz bi dina dox té gëm na ni bu boba non seulement Sénégal dina dox mais sous région bi yépp dina dox donc wax leen ni fi notre engagement c'est faire en sorte que Amadou Ba soit élu le 25 du mois de février 2024 ma ngi leen di gërëm di waaw bu ngeen bu gisee réunion bi dañ ko convoqué ci ñaari fan mais commencement bi dañu jëloon benn hôtel mais après dañoo rendre compte ni xajuñu ci hôtel moo tax ñu ñëw ci stadion bi te boo ñëwee ci stadion bi gis li fi nekk ci responsable parti ak mouvement yi composé Benno Bokk Yaakaar gis militant yi fi nekk nga xam ni kon fii benn Bokk Yaakaar am na lu fi tekki am na fi doole yoo xam ne bu ñu àndee war nañoo mën a am objectif bi ñu xam ne moom la ñu wuti expliqué nañu opération parenage bi nga xamee ne président tànn na Amadou Ba ñun ñëpp waa Benno Bokk Yaakaar ñu ànd ci léegi nag ñu ngi ci parrainage bi parrainage bi dañu ko bëgg a def ci délai yi parce que ci début mois de décembre lay jeex loolu moo tax équipe bi ñu constitué dana dem ci département yi Mbour Tivaouane ak Thiès waxtaan ak responsable yi waxtaan ak militant yi pour accélérer opération bi pour que balaa délai bi objectif bi ñu fixé ñu atteindre donc loolu am nañ ci yaakaar bu baax a baax ndax ni nga xam ne noonu la réunion di tëddate donc bi ñu xayma électorat yi par département moom la Omar Youm doon expliqué département bu nekk nombre d'électeurs ba fa am ci loolu la ñuy basé wu pour dugal fa nombre parrainage parce que parrainage bi nga xam ne moom la ñuy def bu nekkee parenage bu jaar yoon muy yi nombre parrain bi ñuy am ñaare mooy nekk nombre d'électeurs bu élection ba demee loolu moo tax département bu nekk mu am luñ ko fixé waaw département Tivaouane ñu fixé ko cent mille département Thiès ñu fixé ko cent cinquante mille département Mbour ñu fiché ko cent cinquante mille donc loolu buñ ko amee rek buñ ko amee loolu mën da mën nañoo ñu wóor ñu ni euh, Amadou Ba région de Thiès mën nañ koo fal ñoom premier tour ñooñu xam nga euh, ci bennoo la ñu bokk am lu tax prononcé wuñu ñi koy lijjanti mooy waxtaan ak ñoom waxtaan woowu nag doo ko wax ci ci biti ci suuf nga koy def loolu moo tax mu am ci kenn ci suñu équipe bi ñu waxoon ni bu ñu defoon directoire bi dina mën a permettre ñi ci nekk seeni relation ak seeni contact mën a permettre ñuy wax ak ñi ak wax ak ñi pour delloo si ñëpp ñu dellu si ci famille yu Benno Bokk